def si xaal bi ñuy xaar ñu dem bis te ñëwaat. borom daaru waa kër borom daaru nekk atelier soudeur et métallique arminium nekk fii nga xamante ni nii mooy Santhiou euh, 3 face gare routière bu Joal Fadiouth waa kër borom daaru yow mi nga xamante ni nii bëgg nga ay porte yu rafet mujjee génn porte yu mujjee ay xoola ma yii façon porte xoola ma yii dijan yam xoola ma yii façon porte yi nga xamante ni nii da nga yaakaante ni États-Unis d'Amérique lañ ko liggéeyee ñu ni ah ki ko liggéey doomu Sénégal la nekk borom jom ànd ak ay xalem yii façon wan porte nga xam ne man ñoo may liggéey lii ñu ni seetaala taala nekk nag waa kër borom daaru àndandoog ay xale yu am jom 3 ànd seeg ay xale yu am jom numéro téléphone am nekk 77 638 60 nga def 12 77 638 60 12 wala numéro Tigo yu nekk 76 852 11 63 kooku mooy taala ay porte yu am classe porte yu am maanaam porte yu dëgër ta rafet yow mi nga xamante ni nag bëgg ngaa bokk ci xew ba nga xamante ni fu mu toll ngay nes ne si ñuy façon porte aluminium yu dëgër te rafet jokkool gaaw ak waa kër borom daaru dootoo ko defati. di di di tiijoo asalaamaaleykum wa rahmatullah waa étoile jamono delloo si nañ seen émission bii di Dallu Joal tey nag bu ngeen ñu gisee fi ñu toog rek am na lu muy wundu tey ñu ciy dalal ki nga xamante ni mooy Sidi Daffé Sidi Daffé kenn dootu ko présenté mu yàgg xeex immigration clandestine tey ñu dalal ko fii ci Daalu Joal Sidi maa ngi lay nuyu di la ziar. salaamaaleykum wa maa ngi lay delloo ziar di nuyu waa étoile jamono yëpp. Mm-hmm. di leen jaajëfal bu baax a baax ci émission bi nga xam ne ñu ngi ko war a def nii te lépp aju rek ci li nga xamante ne nii mooy immigration clandestine mm-hmm. suñ nee immigration clandestine nag nekk na loo xamante ne nii ñu neexee ni xewoon na mm-hmm. bu ñu neexee ni aussi xew na ba léegi mais nattu la ñu cee dal ñun ñetti nattu moo ñu ci dal. waaw tey euh, yaakaar naa ne yaa ngi wax waxu nattu si di dafe balaa ñuy jëm ci loolu dama lay laaj euh, li nga xamante ni nii yow ba nga dalee xeex clandestin ba léegi ndax am na ñu la rejoindre maanaam ñu la jàppale ñu lay puus wala yow kese yaay combat ba léegi. waaw mooy li ma ne la nattu rek nattu boobu loolu ci laay ñëw rek parce que clandestin bi ma la ñetti nattoo ñu ci dal benn bi mooy am nañ ci yaakaar ju tas beneen bi mooy bi ñu ci demee ba ñëw gis nañ sunu ay nawle yu ñu ci nekkaloon tegatuñ leen bët. beneen bi ci des mooy yàlla nattu nañu ci biñ ci jógee ba léegi ñu porté ko combat boo xamante ne nii moom la ñuy xeex hmm. combat bi nag lañuy def te yàlla tax biñ ci nekkee ba léegi gisuñu ci sàmba gisuñu ci Demba hmm. dëkk bi ñu nekk sax nga xamante ne ni mooy Joal jàppoon nañ autorité yi ci nekk jàpp ni ñun xeex bi ñu koy xeex sax ci lu leen di dimbali la parce que dinañ xool gestu ba tey ñëw investir ci dëkk bi loo xamante ni doomi dëkk bi dinañ fi mën a nekk di liggéey toog fi nga xamante ni mooy seen biir réew mm. bañ a dem fi nga xamante ne nii mooy clandestin ji mm. boobu ba léegi nag yàlla def na ñu ngi ci di napp nabi di ci daj lu metti souvent guddi ñu jóg dem tefas di patrouille comme gendarme boo xam ne yi dañ laa tefal grade mm. mais envie bi la ñu am ak ambition bi suñ ko amee nag li ti ko may mooy dañ cee yéeg dem ba ñëw mm-hmm. man fii ñuy defee émission bi rek fii ñu toog nii dama tiit ndax toog ci bangu weñ fi mu ne moom a gënal toog ci bangu dénk ndax gaal gi toog nii mu may fàttali loo xamante ni lu graw la lu doy war avant ñuy ñëw ci nattu yek combat bi nga porté xamna ni émission bi euh duñ ko mëna def tay ben émission faaw ñu def ko ñaar ba ñet ñi ñuy wax ni nak dee len di abonné ci étoile jamono tay partager tay laal j'aime bi maximum de commentaire lolu moy li nga xamanteni moy tax ñu reconnaître seen bi mais si di defee immigration clandestine yeen jeunes yi nga doon def. naka la ngeen di demee ci biir gaal gi ak paas bi ni mu doon demee cotisation bi ak yooyu rendez-vous yi fu ngeen doon dajee ci briefing boo ñu ko doon tënkal loo ñëw waaw bu ma ko doon dënk ni ma koy waxee mooy immigration seen natt bu ñëw la rek ndax li tax muy natt bu ñëw mooy tey mi ngi mel ni ngay togg ceeb sóor yàq gis cere dina la jaaxal lool ndax phénomène la bu jóg kenn ku ci ne naan mbëkk mi mbëkk mi daanaka ñi koy def wala ñiy dem ñëpp sax ci programme maanaam jotaay toogaay ci la ñuy jëlee yenn information yi parce que néew na nit ñëw ni la kaay ma yóbbu la Espagne wala damaa am gaal boo tegoon début ba fin dégg naa dégg naa rek ngay am ci biir loolu nag ci lañ nekk dëkk bi ku ne xam fi dëkk bi toll mu dëgër ñu am yaakaar yi ñun bu ñu génnee dem xam nga bu ñu demee mu changé te li gën a yéeme mooy tey loolu nga foogoon bay dem day gën a doy waar parce que bi nga demee doo ci gis dara hmm. booleeg sa coono ak it li nga yoroon ko si néew nga xamante ni da ko yor xeeb ko nga jël ko paase ko dem loolu yëpp benn satisfaction doo ko am bi nga demee ñibbisi ñi nga xamante ni nii ñooy sa waa réew en tant que président de la république ak équipe ñëw kar la dëfal la dalal la wax la wax ju tooy xépp nga jàpp ni kon alhamdulilah li ma doon wuti réew jàmbur mun naa ko am sama réew France daal di xëddeen parce que ñun bi ñu ñibbisee jël nañ ñu kenn ku ci nekk ci ñun say numéro téléphone fi nga dëkk sa localité bi nga bokk ak yow mi nga doon hmm. armée bi xam nañ ko parce que armée leen fa fekkoon hmm. ñu wax ñu ni ñu fi ñu demoon xam nañ ni ñun ak njàmbaar moo ñu fa yóbbu hmm. fi ñu demoon xam nañ ni tey liggéey moo ñu fa yóbbu mais ñoom bëgg nañ liggéey boobu nga xam ne moom la ñuy liggéey fële ñu liggéey ko ci suñu biir réew kenn ku ci ne ñu xam li nga financé woon li nga fere wax la ni la dinañ la ko jox am nañ ndàmpaay yu ñu booleel yoo xamante ni nekkul lu nu may pour kenn ku ne def ko sa poos di ko defee lu la neex pour loo dimbali ko taxaw sa réew liggéey loolu lañ ko defe woon mais boobaak léegi nii jotuñu ci dara. waaw Sidi euh, loolu lu am solo la waaye man damay ñëw avant ñuy terminer xam naa ne loolu la ñuy tëjee mais départ bi juste ki nga xam ne moo bëgg clandestin jour bi ngeen waxee ni tey lañuy ñuy départ fan ngeen daje ak na naka ngeen di yéegee ci biir gaal gi ak yan jafe-jafe la foofu noonu bu ngeen di dem da ngeen di yëg cawarte wala réccute non booy dem mën nga yëg cawarte. parce que cawarte gi nga yéeg moy japp nga ni yow bo demee Europe rek sa lepp massé na dem bet ni muy demee danaka muy comme ni ngay égué Espagne ak fi nga jëm danaka sotti xam lay doon parce que man finance ma suma ma ngi fayé Joal bima fayé fayee joxuñu ma euh, benn këyit boo ni la wala dara ñu joxaat ma rendez-vous benen jour ni ma jeudi lañuy dem man 500 et quelques 500 et quelques waaw parce que dañ ma laaj 600000 aw ma 600000 ma joxe 500000. ci biir cinq 500000 yi ma joxe protocolaat nañ ma ba laaj ma at ma euh, mille yoo xam ne dañ ma ni mooy lekk bi ak affaire yooyu noonu daal. muy mille ak yenn weccet yu ndaw. bu ma xoolee daal samay mille moom dem na ci li nga xamante ni mooy paas plus sama argent de poche bi ma ko joxee ba pare itam dañ maa jox jour benn jeudi ni ma ci la ñuy dem jeudi bi bi ma fi jógee oto laa dugg particulier di daw xaw ma fi ma jëm. Hmm? xaw ma ko de oto bi day daw di daw bañ dem Dakar hmm. biñ demee dakaar benn gàlle hmm. waa ji ni ma wàccal ma wàcc mu dugal ma ci benn néeg néeg bi bu ma ci duggee fekk naa fa samay morom mais ñi ma fekk ci kër gi mënu ma cee xam kii day clandestin ji wala clandestin ji wuñ parce que kër gi bâtiment la ñu ngi liggéey ay maçon ngi ci kër gi ay locataire ngi ci kër gi ñëpp kenn ku ne ne ci kër gi mais comme man maa ngi door a dugg ci clandestin mosumaa yéeg ci gaal di dem fenn lu may def lu ne rek dañ ma koy def loo ci laa ñëw ci kër gi nekk fa trois jours ba ci quatrième jour bi ci lañ ñu ni tey jii la ñuy dem fi nga xamante ni nii mooy Espagne dem bet ni muy demee mooy dañuy ñëw gaare la ay oto biis ay biis ñu génn yéeg yaakaar naa émission bi mus naa cee def mus naa cee def émission sax bi ma ñëwee am na benn chute bu ma ci mës a def émission clandestin comme nii comme ni ma ko expliqué woon rek waaw waaw waaw Texcom jaajëfal waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax mhm. def naa ñoom benn émission boo xam ne ni wër na àddina mhm. émission yi nag du ma tàyyi ci di ko def parce que mhm. li tax ma di ko def mooy sensibiliser jeunes yi parce que fi ma nekk nii muy Joal rek temps yi la ci ginnaaw voyage yi naa ñëw dégg ñu naa gaal jóge na fi dégg ñu naa am na gaal gu dem gaal googu bi mu demee boobu ba léegi nii kenn xamul kaw la ne kenn xamul suuf kenn déggu ci kenn déggu ci dara te ñi ci nekk suñuy doomi réew lañ ñi ci nekk suñuy nawle lañ ñi ci nekk suñuy moroom lañ kon man reculer bañ a xeex ci immigration clandestine waruma benn yoon. dëgg la euh, muy gaal gu doy waar wax na dëgg Alaaji Sidi Dafe ay xale yoo xam ne ñu ngi tëmbee woon Joal mais ba tey kenn gisu leen waaye balaa ñoo mbëbëstal ci loolu rek euh, damay bëgg ñu wax ci sujet bi muy premier jour premier jouru gaal gi mm-hmm. ngeen dugg wala ñetti fanu gaal gi foofu lan ngeen fa dund sii di Dafe. premier jour gal gi mom mbekté ngay am moy gal la doon wut yek na ambiance bi mi ngi tambalé mais fi graw deug deug deug deug moy mhm. 3e jour 3e jour wa mu lèr la ni mhm. mënoto fanani ci deuk su problème amé bo bëggoon a ci Sénégal di nga daw 3 jours door ex fi nga jóge woon mhm. nga wara dem fi nga jëm dese nga 4 jours ci 7 jours yi nga xamanteni ni mom lañu wax fofu nak la bagage yi tambulé doy war ñi waccu di waccu ñi sonu di sonu parce que tey comportement bu nekk ci yow ci njaflax ci gentleman ci lu mu doon boo duggee ci gaal yi loolu noonu moom day mel dañ ko ci sànni fële ndax yow bu fekkente ni yow yaa ngi estable yow ci sa bopp ñi nga nekkal di nga ci gis nit koo xamante da dangay fàtte sa bopp parce que tey ku daan gis dee ci nit ku tëdd ci margo rek ñu tàgge la ñëw sang la taxawu la taxaw jullee la sikar suuli la nga xam ni yow loolu nga xamoon ci dee diw gaañu na ñu ngi koy robi tay nga ñew and ak nit ba yag nga jékki-jékki gis ñu japp ay tankam sa way ñu ne eh, ki da wacc na liggéey hmm? nan lañ koy def japp sànni ci géej japp sànni ci géej gaay a ah, ñu ne nu ñuy def ñu ne nañ tari faatixa ak falax ak naasi kenn ku ci ne ñaan ñu sànni ci géej kooku nekkoon koku nekkon ko xamni ni amna xaritam bu mu andal wala amna magam wala leneen mm-hmm. nga nekk ak mom ci bir gal gi coono bi gal gi dem nañ ba as sax problème dañuy am ku ñu as mm-hmm. ñun li gënoon yéeme ci sunu gaal mooy demoon nañ ci géej ba toll foo xamante ni nii capitaine yi nga xam ne ñoo doon yóbbu gaal gi tële nañ ci yóbbul ñu sunu gaal am na waaw am na benn waay client la woon comme man nekk ci géej mm-hmm. mais avant loolu doon na dem géej nekk ci gaal yu ndaw yi la dëkk mm-hmm. tur bi laa mënut a jàpp mm-hmm. parce que man ñi ma bokkaloon gaal ku ma ci jaakaar loolu mën naa xam ni kii diw la mais tur yi falaane naa leen parce que Espagne ji da ngay nëbbutu am na ñoo xam ne seen vrai tour duñ ko joxe li tax nga xam ne nelaw da ciy am mooy ñun bu ñuy demee ba ci digg euh, ndox mi mm-hmm. da ngay jékki dégg ku naan pièce bu dee yor nga ko sànni ko bu dee yor nga seefa sànni ko mel ni yow da ngaa war a judduwaat tolluwaat ci àdduna foo xamante ni nii da ngaa war a bees tàq dundu loo musul dund sànni sa carte d'identité nangam ba nga xam ne yow boo egsee sax fi ngay egsi mm-hmm. ñoom lu ñu xam yow fan nga dëkk du ñu xam fan nga jëm loolu yëpp nekk ci huis clos bu hmm? rek ni kon clandestin mom lambatu la fi nga jëm xamoo lu doon xamoo lu fa xew bon ñuy def noonu miti yi ñi nga xamanteni ni nii sonn nañ feebar ñu ngi leen di joxe comprimé mhm. mais dañuy toll foo xam ne lott day am mhm. ki nga xam ne nii moo yoroon saag bi nga xamanteni ni nii moo yor euh, comme ni ma ko mën a waxee mhm. boîte pharmacie bi day dem ba li dal gaa yi da koy dal talatu la léegi nag bu ko defee kenn ku ci nekk tal sa bopp mais est-ce que nekkul loolu mooy faral di indi nit ñi tiitaange bi ñu naan ay vampire daf ci am njombantaan wala dañ fay rendi ay nit ci biir gaal gi est loolu mun yow dund nga ko wala am na vampire bi ni am na ñun suñu gaal gis nañ ko ci gis nañ ci waa joo xam dañu ko remarqué ni woon waa ji guddi ba guddi lañ koy gis ah guddi ba guddi guddi ba guddi lay ñëw ci gaal gi ñu naan sa waaye ñëwati na nangam ñii di saaga ñii ni nangam nga gis gaa yi indi buum bu ñëwatee nañ ko yeew nangam ñenn ñi nag aussi tiitaange lañ koy defee parce que mi ngi mel tey nga gëmmentu war a nelaw nelawoo booy xool benn image day mel ni ñaari image ngay am affaire yi mën na lay dikk comme genre gént di la mm-hmm. dikk comme saaru affaire mm-hmm. mais xam nga nekk ci lëndëm di dégg ay yuuxu di dégg ay dompay di dégg ay leneen parce que sa waay gaal lu la nit wax rek am na ci te li ci xew te xamoo ko ndax tal sa bopp moo ëpp fuuf li ci xew man maanaam bi ma jógee ci gaale ak tey mm-hmm. yàlla xam na ni su su ma gisoon kuy clandestin ji nii tey jii yaa xam yoral goon yaa xam yoral jaasi hmm. man jaral na ma nga dóor ma ko ma faatu hmm? mais dinaa la yoole fi ma nekk nii am na ñoo xam ne ñu wax ma ko ñu bañ ma koo xam Joal bi ma ne hmm. xam nañ ni kii nii élément la boo xamante ni fu mu seen gaal guy mbëkki dina ko wax parce que bu yàggul dara am na ay tubaab yoo xamante ni ñëw nañ fi mooy armée ñi nga xamante ni ñooy waa Espagne yi nekk fii ñëw nañ ba fi ma nekk seet si ma seetaan vidéo yu wax la wax nañ leen ko ci seen langue. Mhm. comprendre nañ fi ma waxee. Mhm. méngoo na juste ak li nga xamante ni nii moom ñoom la ñuy xeex. Mhm. ba ñu taxaw jox ma loxo pour fas yéene ñu xeex li nga xam ne mooy immigration clandestine. sant nañ ci yàlla nag parce que rumeur bi ni mu doon jógee am gaal yi indi gaal yi nga xam ne deux jours yoo toog dégg gaal trois jours mel na ni wàññeeku na mais ci biir wàññeeku boobu noonu du tax ñu teggi suñu tànk. macha allah ñuy gërëm ki nga xamante ni mooy Sidi Dafe euh, mu dund ci clandestin loo xam ne lu doy waar la ñuy wax état wu Sénégal nañ ko jàppale ñu porter combat ak moom parce que toog rek naa naan doy na waar booy ñam nañ lu métti dootuñ dem loolu taxul booy yi bañ a dem lii tax booy yi bañ a dem mooy ñu jàppale booy yi bi ngeen demee nag ba nga xam ni jege ngeen Espagne ngeen xam ne Espagne ngeen gën a jege que fi ngeen jóge woon foofu tam yan xew-xew ñoo ñun bu demee ba nga xamante ni jigéen dëkk bi. Euh, amon nañ contentement mbekté ni lampe yaa ngi nee jige mm. mais dem nañ ba ci biir itam suñu yaakaar tas mm. ndax li tax suñu yaakaar tas moy dañoo dem bay seen dëkk bi té gal gi nga xamni mom lañ nekk mm. gal gi mëna tula dem ndax gal gi toj na fépp fenn fu ci nekk di ball ndox muju na gal gi boko zéné da nga yaakaar ni 500 keesu yaboy la yab day rasé ndax 10 nit diisalu ko ndox mi moko ko diisal léegi marine bi nga xamni ñun fuñ ko mësa seen dañuy daw muy marinu espagnol bi nga xamni ñoo ne ci geej gi di garde mhm. nga xamni fuñ ko mësa seen dañuy teggi nenañ siiw soxla ko pour gis ko biñ koy seen après nak ñom biñu seené mhm. am nañ journée lëmm bo xamanteni ni ñun marine bi rek lañuy talal loxo marine bi lañ fexé pour gis mhm. ci lañu yalla dimbali biñu xolé suñu programme nan ay 2 jours moñu déssé pour ñu egg suñu 5e jour bobu ci lañu marine bi jël si bi mu ñëwé dañoo taf bi mu ñu tafee ñenn ñi wacc pour yéeg ci marine bi ñu jéki jéki jël ay buumu anu tak ñaari gal yi tak gal ge ak suñu gal acca dox ak ñun commencé daw daw ak ñun daw ak ñun daw ak ñun presque lu yagg ba jéki jéki téral ñu ci benn port port bu ñuy wax il Euro ci biir dëkk bi ngeen di téer wala ci île ci île parce que ñun fiñ nekkon ci Espagne mm-hmm. parce que sept îles a ngi foofu noonu mais île bu ne rek boo ci teeree mel nga ni ku teer ci dëkk mais ville beeg yooyu moom dégg rek nga ci am parce que ñun dem nañ fa ñeenti île hmm. yoo xam ne benn bu ci nekk temps bi ñu fay toog bu jeexee dañuy jël yóbbu ñu ci beneen temps ci biir temps boobu noonu nag day mel ne dañuy tàggat parce que dañu ci won image bu nekk ndax bi ñu teeree erreur dañoo jël tëral ñu lalal ñu ay mbaaji ñu tëdd ñëw indil ñu ay comprimés pour suñu coono làmb ñu ndax nit am na ci ay góom am nangam parce que am na ñoo xamante ni seen taal yi dafa yàqu maanaam fi ñu toog ci gaal gi toogaay bu yàgg dafa dem ba dafa futt seen ginnaaw seen yaram ji futt ak ndoxu xorom yooyu am ñoo xam dañuy wàcc wàccaale ay góom wàccaale leneen affaire bi daal li ma la mën a xamal mooy kenn koo xamante ni nii jaral nga ci yenn coono yi mm-hmm. bu ñu la waatoon léegi nii la gaal ngi nii da ngay egg léegi jël milliard tourné mm-hmm. bu fekkee nit kuy xalaat nga dootoo yéegaat ci gaal gi daal waaw te la ca yéeme dëgg nag mooy la ma waxoon rek sept jours nga koy daw ñibbisi ci une temps sept jours après nga ñibbi sept jours ngay daw booy ñibbi si une heure de temps val ngay yéeg Las Palmas jëm si fii trente minutes ci biir val bi laa la bala ngay ndékki ba ndékki liy jeex une heure de temps val bi agsi na Sénégal hmm. nga comparé nag man bi ma ñibbisee ñibbisi naa am quatre jour yoo xamante ne nii hmm. day mel ni damay bu ma gestoon damay seen Espagne nee pour temps bu gàtt bi comme nelaw fa démb yeew hmm. ñibbisi. ñibbisi tey seen ñibbisi lan la dañ leen wax Sénégal ngeen jëm wala. non ñibbisi bi ñun bi ñu egsee Sénégal la ñuy door a xam ni Sénégal lañ jëm. dañ leen a nax dañ ñoo nax parce que ci biir loolu booba dañoo nekk ci camp bi ñun camp bi ñu nekkoon. Mm. gars yi dañ doon jël nit ñi di leen libéré di leen yóbbu. Mm. mais dañoo toll moment boo xamante ni nii nit ñi dañoo débordé bari camp bi ñu newoon dem nañ ba 7740 personnes moo ci nekk. ñaari camp xanaa Afrique moom kenn desatu ñaari camp yu taqaloo la. Mm. bii 64 chambre mi ngi ci chambre bu 64 néeg. néeg bu nekk boo duggee ci biir 64. chambre mi ngi ci ci espace bi chambre mhm. yooyu noonu benn bu ci nekk boo duggee lal yi vingt quatre lal lay doon camp boobu ñu nekkoon quatre vingt mi ngi ci chambre bu nekk di jël soixante quatre personnes beneen bi ci des trente trois ci biir loolu ci lañ te chambre yi fi ñu lay yóbbu noonu mhm. ci këru kiiw armee yi lañ lay yóbbu camp lañ lay yóbbu nga nekk fa di dund nu armée ñun dem nañ ba bu ñuy sangu sax dañuy soufflé ñun ñëpp ñu duggandoo ci biir benn salle boo xamante ne nii kenn ku ci ne benn sens ngay taxaw complexe moom amul. yéen ñëppay gisante. calson kese ngay def jël sa sampon xëbal isa da ngay xëbal sax nekk fa di sangu sangul du yeex yi gars yi jekki jékki fay machine bi hmm? amul loo fay commandé parce que lépp dañ la koy defal. mais li ci yéeme mooy ñibisi bi dañoo xëy xëy ñu ñëw ci camp bi libéré benn gaal ku ñuy wax gaal 42. Hmm. parce que ñoom gaal yi nombre bi da ngay dégg gaal 11. Hmm. gaal 42. gaal 30 gaal nangam noonu la ñuy numéroté gaal yi léegi yow 42 di nga xam ni tëngéej nga déparé woon bu ñu nee gaal 42 ñoo ñu jóg léegi bu ñu wooyee ñoo ñu jël leen yóbbu ca suba sa ñoo ñu ootee ni ñoom dugg nañ ñi ngi ville. loolu lañ lay waaw. mais ñoom dañ doon dugg. dañ doon dugg léegi bu ñu duggee nga ni eh gars yi gars yi ñu jëlee fii démb da ngeen dem nañu ville ca suba sa ñu ñëw libéré libéré ñu ëpp ñooñu ñoo ñu ñëw wàcc Jolof business la doon waaw nga dekki-dekki dégg ni gars yi wàcc nañ jolof Sénégal doo dégg turu Sénégal sax jolof ngay dégg oh nga dégg gars yi doon nañ yëngal taal nañ aéroport nangam oh bu ñu ñëwaatee bëgg a libéré bu ñu ñëwee rappel ñëpp taxaw tudd seen tur yi gars taxaw parce que mi ngi luus mhm. ñu fexe karkaral ba jël ay quelque dugal ñooñu kiyaat bu subaa bu ñu ñëwee jël ci biir loolu ci ngay xam ni yow fi nga jëm da ngay egg rek door a ni fi nga jëm ñun jël ñoo jëlee teg ñu ci ay biis xamuñu fu ñu jëm ñu nag biis yi ci biir ville yi ville bi da ngay dekk di daw ba yaa nga jekki-jekki ñu jëm taxawaat ci port ñu jël la defal la ci ay kaar biis dem biñ ñëwee Las Palmas ñu nekk fa nekk fa nekk fa 11 jours douzième jours dañoo ñëw rek ni libération aujourd'hui ngeen war a jóg gars yi yëpp jóg taxaw ci piste bi ñuy libéré ku ñu rappel sa tour nga génn ku ñu rappel sa tour nga génn ñu ni ñu tey dañuy libéré cinq val ñu laaj destination yi fan la ñu ne ñu première val Malaga la jëm deuxième val Valence troisième Madrid quatrième Barcelone. Hmm. cinquième bi Murcia. ngeen kontaan ñu kontaan mbalagante yi tàmbali ki jëm Barcelone ana Eto'o ana nangam joueur yi. gars yi di xam nga. yaa ma yaakaar ni parents yi ndeysaan yow miy génn sax fi nga dem fi ngay jóg. Hmm. da ngay dem mais am na ñu taxaw ñoo xam ne dañoo war a ñëw chambre bi nga ne. Oh man maa ngi fàttaliku gars yoo xam bi may génn sama sampon yi ma doon sangoo sama mbàjj ñoom laa ko may mujj nañ sax des waa ñoom fa lañ nekk bi ñu ñibbisee ñëw ñu teeral ñu Dakar Bango senegal Sénégal ji amoo lu dul val bu taxaw nii nga xam ni fii senegal la gars yi collé ci avion bi mhm. war a wàcc dër gis naa benn gaan boo xamante ni Omar Dramé lañ koy wax waa Saalum la kooku ba léegi nii bu ma ko fàttalikoo sama yaram bi day daw parce que ni mu def ba dem ba dem Espagne mhm. ci gaal daf ma ko wax papaam dafa décédé oh. mu nekk ak ay sëram ak i rakkam ci biir kër gi mbeuk mi jog mu ñew leen fal force da ngeen di mirage pa bi jox ma lima ci am. jaayante jaayante tek sañ-sañ gaay jaay kër gi mirage ko génne ci ciiram jox ko mu ñew dem mbeuki yalla def affaire bi échec. gis nga bi ñuy ñibbisi bay toll côté Kébémer. Mm. bi ma laxaso ni ma copain man omu fu ma jëm. Oh. mané ko omu fa jëm waxi lan la mu ni ma xana da nga faté lima la Espagne man sunu kër la ma fa amon jaay naa ko di yëkkat joy nga xool ko muy ab gentleman xam nga li mu wax kon léegi maanaam boobu déception léegi moom fi mu jëm bu demee ñooñu bu ñu ko mënta recevoir rek moom àddunaam yàqu na ak ñeneen ñoo xamante ni nii ñenn ñi dañoo triande xaalisu jàmbur dem ñenn ñi leb banque demee ko Espagne léegi ñibbisi sa mental yàqu man mi wax ak yow nii yàlla xam na ni euh, damaa découragé woon mais xam nga géej li ñu naan du ëmb day xëy wasin mm-hmm. yaatu na ginnaaw bi ma toogee kër ga nii toog question yi di bëri nit ñi di ñëw xam nga kenn ku ci ne bëgg explication yoon parce que man suñu dëkk mel na man maa fa demoon Espagne ci dëkk bi ma dëkk mel na man maa fa jógee yéeg si gaal. dëgg la euh, ñu ngi mastaw waa Kébémer bi di wax état au Sénégal ngir yàlla jàppale leen seen doom yi bëgg nañ liggéey Sénégal amul yaafus ñii ngi yenu pañe ñii ngi ci port bi ñii ngi fanaan ci géej gi. Afrique ay ndaw yu nangoo liggéey ngeen am moo tax ñuy jaayante di dugg Espagne ñuy mastaw waa Kébémer boobu yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye état bu Sénégal ñi nga xam ne enregistré ngeen seen numéro te jaaroon ci gaal gi ngi ngir yàlla geesu leen leen te bàyyi politique beeg tactique beeg chiffre d'affaires yi te defu leen fi dara si di dafe bi nga ñëwee yow seen kër ak tàggatoo bi nga defoon bila la say parents gisee nan lañ non ñoom moom bi ma ñëwee déception la ñu am surtout sama papa sama papa moom gan la ndax euh, comme côté yi ñu dëkk Sénégal sax laay wax jàppoon nañ ni képp koo xam ne moodu moodu ñu ni rek tekki nga waaw maanaam gaal li ci garaaw mooy ana ñoom diw eggaguñ ana nangam mais daanaka boo wootee ni egsi naa rek sa njaboot moom ñu ngi ci jàmm jàpp nañ ni benn instant xam nga génn nga fi nga génn xam nga tranquille daal kumpa gi daal moo leen di gën di sonal. mais loolu yan année la woon. man 2006 laa mbëkki woon. 2006 man 2006 laa mbëkki woon. xam li ne ci mbëkk mi daj ci lu métti moo tax 2006 ba 2019 mosuma jóg ci xeex immigration clandestine. Sidi dafa nga mbëkki woon 2006 ba tey ñu ngi ci 2022 sa dundu lan la ndax réccu nga ko walla yaa ngi dund wala yaa ngi liggéey soo ñu ko mënoon a résumer sa dellusiwaat Afrique. non su ma dellu dellusiwaat Afrique moom dellusi la nekkaat ci li nga xam ne nii moom laa nekkoon euh, am naa ci nag lu ma metti mën naa ne bu ma jógee Espagne ak tey. avant may dem di mbëkki ci laa gëloon a développé à de bi ma ñibbisee parce que bi ma ñibbisee déception yi ma am moo bëri ndax man xam naa xel ni man bi ma ñëwee ak ku mel ni man loolu ñu état dik nga xam ni suñu yëf la ñun ñoo ko moom ñun lañ ko war a jox pour ñu taxaw investir ci suñu dëkk parce que ñun Espagne ak feneen fu ñu ci dem lan fay def ku ñu ko defal ci suñu dëkk ñu yem ci suñu dëkk est-ce xam nga ne Espagne ay tool a fa ne te ñun ñoo leen ëpp ay tool téeméeri junni yoon man mii wax ak yow yàlla xam na ni fa ma dëkk li ma am ci suuf su ma fekk samay maam di ko bay samay baay nga xam ni ndonoo lay doon fu waaye sa maam doon bay bu sa baay ñëwee moo koy moom bu sa baay jógee yaa koy moom ku ma fa investir woon ñeewu ma kuy dem Espagne di yéeg ci avion di dem di ñëw parce que lu ma mën a am xëy wàcc nekk ci sama njaboot moom ma ko gënal lu ma mën a am nekk ci sama askan sama biir famille moo ma ko gënal kon dem bi du sago mais xam nga dem Espagne ñibbisi Espagne gi nga demoon ñoom ñu xam xel ni yow mii liggéey moo la fi indi parce que ñun inkat nañ ñu kenn ku ci nekk wax nga sa ambition lan moo la indi fii lu tax nga ñëw lan moo la jëlee Sénégal ñoom ñu xalaat ci loolu ba xaatim ci tënk ci ba bi ngay ñibbi si indi wuñ la rek loxo kese am na ndàmpaay bu ñu la jox boo xam ne dañu la boo demee sa biir réew toog fa liggéey kon li laay war a suule état Sénégal waroon naa mën a taxaw gestu tey jii ñooñu nga xamante ni dañoo yéegoon ci gaali dem parce que tey suñu leen gëstu woon ba investir ci ñoom ñuy liggéey mhm. man jëlale naa sama bopp mais mhm. ku investir ci man ma liggéey loo ay nit yu bëri mhm. ndax lu mu néew néew néew lii ma nekk ci pes di ci liggéey am naa ci xam-xam moo xam bu ndaw la moo xam bu bëri ma yàgg ci parce que tey li nga xamante ni moom laay liggéey tey jii muy géej benn oto bu jën bu ma liggéey bu ma liggéey bu nekk rek soo ko calculer tey jii ci calcul bu ndaw employé naa ci 40 personnes ci benn oto. ci benn oto parce que boo xoolee oto bi ngay yabi jën muy dem ay 200 keesu jën. Mm-hmm. transporteur bopp di ko yanu lu ma 10 moora yanu ci kenn ku ci ne yanu ci 10 kees ñii 20 kees. Mm-hmm. nga ñëw kii yanu glace gi 4 personnes yanu ko. Mm-hmm. nga ñëw ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw oto bi di ko liggéey muy huit personnes mm-hmm. ñaari chauffeur yi euh, chauffeur bi koy yóbbu ak convoyeur mm-hmm. nga egg fi nga koy jaayee ji marché ñooñu nga xamante ni ñoo fa nekk jëlaat ko di ko yanu par bac loolu emploi la soo ko compté rek kenn ku ci nekk yow sa benn oto jën bi ngay liggéey en tant que marier rek yaa ngi employé macha allah di Dafé xam naa ni deux minutes moo ñu dese si di Dafé boo ñu doon tënkal Afrique ndax jar nañoo xeexal am diit wala Sénégal ñu yem ci parce que depuis nga ñëw ba léegi yaa ngi commencé xeex immigration clandestine tax gis nga ci sa bopp. noo gisuma ci sama bopp parce que amul benn benn benn benn politicien parce que ñoom li tax ñu tuddee leen politicien ay nit lañ. mënoon ngaa jàpp ni gisuma nit sàngam. Mm-hmm. mais politique lañ jël mu porté ko combat teg ko ci seen mbagg yi ni askan wi lañ fi nekkal mm-hmm. kon politicien nga leen di tudde mm-hmm. tey kenn ku ci nekk ci ñoom moo xam élection yi ñu génn maire bi nga xam ne moom lañ génn bu fekkoonte ni doon nañ suivre tey déglu seen bir programme képp programme koo ci liir war na cee gis programme jeune Senegal, Sénégal mhm. lan moo tax ñuy immigré ji jeunes Sénégal nan lañ mën a def ba toog fiñ ñu toog mhm. man tey dëkk bii ma nekk muy Joal Fadiouth mhm. Joal mbooleem population Joal mën nañ leen a emploi ci biir Joal te duñ génn Joal parce que am na secteur yoo xamante ni benn bu ci nekk ay niti niti niti nit ñu bëri mën nañ ci jàpp ñu jël mais nag tey jii boo bëggee dégg dëgg ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaw di liggéey ci nguur gi seen yëfi bopp moo leen gën ñor yëfi nit ñi mm. parce que nag gis nga boo bëggee dégg dëgg ji li mm-hmm. doomi géwél saa yu juddoo mm. indaale muuma rek mm-hmm. tas na yaakaaru baayam lu leer parce que lii problème bi mooy tey ki nga xam ni moo nekk ci kaw war laa gestu war a waxtaan ak yow war laa dimbali pour nga liggéey parce que si bi ngay dimbali du moom képp nga dimbali de mm-hmm. tey boo koy employé da nga koy employé ci loo xamante ni nii mook jeunesse bi ñoo koy bokk jeunesse bi ñoo ci gis seen bopp. Mhm. c'est pas pour lay laay li lu mu am ci posam la koy def dedet man soxlawuma intérêt personnel. machallah mu nekkon dal jowal ak Sidi Dafe euh, bu len faté di abonné chaque jour étoile jamono ni la euh, jeunesse bi bëgg nañ liggéey comme niñ ko waxé sank am nañ jom am nañ jambar mais dañoo gisul ku leen jàppale. Euh, di jëlé ay nit tas seen yaakar jëlé len Espagne ñoo jox len 110 dix ak 10000 mille francs lolu jaadul xaalis yi nga xamni li pays européen ñu ngi koy jox ay doomu Afrique nañ ko jël delloowaat ko ci africain yi créer ay emploi nit ñi liggéey su boobaa Sénégal ca kanam Sidi loo jeexale waaw li may jeexale mooy comme massaw ñi nga xamante ni nii seen doom yi des nañ ci clandestin yi mhm. di leen wax ni bu fekkoon mën nañ leen a fekk fi ñu nekk ci géej wala fa ñu nekk ci joor dee fa mën nañ leen taw indi leen mën leen seen néew yaa ngi nii dañ koy def parce que am nañ ci lu ñu metti hmm. amuñu nag caméra yu ñu leen wëre amuñu gaal gu ñu leen wëre mais bu ñu mënoon a féey dañuy féey nekk ci biir géej gi di leen seeti te li ñuy wax nii dañ koo tibb ci suñu xol combat bi ñu porte nii yàlla xam na ni suñu combat la tàyyi ci benn yoon hmm. di wax ni nag képp koo xamante ni nii politicien nga wala ngay kuy liggéey ci nguur hmm. wala ngay koo xamante ni nii mun nga emploi dara dara dara ci Sénégal ñu ngi lay woo nga def contribuer ci emploi Sénégal nga góorgóorlu ci ñi nga xam ne ñooy jeunesse Sénégal parce que ku ci xëy am xëy mm-hmm. wax dëgg yàlla jooyatoo dara mm-hmm. ndax saay foo dem nga ni damaa liggéey mm-hmm. loolu rek doy na aw lay mais ponk yu xëy di tëdd nasuñu nocc wuñu ba pare yor kër yor njaboot di joxe dépasse metti na te yéen politiciens yi lu ngeen bëgg a def yéen a koy def parce que kenn ku ci nekk ci élection yi génn dégg nañ sa budget dégg nañ li nga génne ci xaalis kon gestu leen jeunesse Sénégal gestu leen nit ñi ñu liggéey te liggéey réew mi lii rek lañ am ci lu ñuy wax di gërëm nag site bi nga xamante ni nii moo def lii étoile jamono mhm. parce que bamu tuddé bopam dal dàll Joal mhm. la xamni ni kon Joal Fadiouth ak li wër Joal Fadiouth ak Sénégal moko taxa jog mhm. parce que dal ki nga xamni ni moko sol di wër bañu ta dox ta dox biñuy dox lepp lo xamanteni ni information la wala lo xamni ni xew-xew la ñi ngi def le tout pour jaayante nit ñi nga xamanteni ni ñi ngi koy dégg ñi ngi jéglu nak képp ko xamanteni ni ni rek suñuy wax gis nga ci sa bop ci lu la nakari ñi ngi la koy jéglu xërte lañuy waxé ak bëgg-bëgg ak ambition ak ñaak triser ci li nga xamanteni ñi ngi nekk ñi ngi jaajëfal ñëpp ah di jox ñëpp seen wàccuwaay di ziare ñëpp di bëgge ñëpp di baal ñëpp ak tey balu ñëpp mu nekkoon euh, Sidi Daffé di xeex li nga xam ne mooy immigration clandestine yow mi may dégg te nekk autorité gaawal gaaw nga contacter ko euh, ñun suñu numéro service commercial a ngi noonu 78 728 54 24 képp koo xam ne oote nga ci di ñu ci jot euh, Daalu Joal nag lii la leen indiloon tey Sidi Daffé est-ce que mun nga joxe sa numéro en direct ki nga xam ne bëgg na joxe jàppale liggéey ak yow ndax mun nga ko waaw sama numéro moom maa ngi koy laabrante ñëpp képp nag koo xamante ni nii ci li ma nekk moo tax nga soxla ko mhm. mun ngaa jël numéro bi 77 la 318 00 47 77 318 00 47 ayca mu nekkoon daal lu sa wàll lii lañ leen indiloon di jaajëfal njaga suñu caméraman suñu réalisateur suñu monteur nga xam ne moom bu dul moom dara du sotti ñu leen di jox beneen numéro ci beneen dox daje ci Dallu Joal Fadiouth